la femme sénégalaise doit être au cœur de la problématique du développement mais nous, ñu koy nous nous ci parti politique yi nous ak fecc wax il faut nous ñu xamaat nan la politiquer ngeen rassemblement euh, surtout que nous sommes un pays sous-développé Lumni ñi barina. il faut que nous loolu ñu changer ko dajale nit ñi ñu dem stade hein, nga jaay ay centaine de millions te waron dem ci nit ñi bu président di ñëw nga dajale nit ñi ni kenn du liggéey nga baare yoon wi mais kooku yooyu war nañ ko seet yoyu la wara war pour redresser notre pays mais continuer sur ces pratiques là man je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord ànd naag président wad partout da ngay dañuy ñëw ci aéroport ben ministre sax du la Ben benn chargé d'affaires mooy ñëw nga dugg circulation ben moto jitu ngeen top ci mais lolo yoon aussi lolo yoon do dem Europe ba gis ben président ñu défal ko fu lu ëpp lool bu président France ñëwé ñu dajalé tout un peuple là une journée de travail mais, mais combien cela nous coûte alors waaye mangi ngi gàc gàcce Sénégal damay wax ni euh, bu kër yi Digel ñi la parce que da ngay gis góor gu xëy sànni sa jabar 1000 francs wala 2000 wala 2500 daal di dem doo xam sax lu muy jar leneen li te boo ñëwee bëgg fekk foofu lu baax té jigéen ñi wax dëgg yàlla loolu euh, ñoom la dama daan wax ni bi ma nekkee maire chaque fois bu ma tasee population yi ma ni leen suñu fexewul kër yi baax te kër yi jigéen ñee koy baaxal mbedd mi du baax bu mbedd mi baaxul dëkk bi du baax bu dëkk bi baaxul réew mi du baax donc la phase la femme est à la base de tout kon nag

mukk ci àddina jàngal ma nag moo gën nga may ma jënd loolu wax nañ ko eh, et bu ngeen seetee